jërë ngeen jëf mbokk auditeur u Afia FM comme niñ ko baaxoo di def seen rubrique Cinéma na ñu ñëwaat ak yéen nag waxtaan ak yéen si li nga xam ne moo di wàllum immigration régulière di fàttali ne projet bi OIM moo ci lëkkaloo ak li nga xam ne moo di agence u italien mais également ak rajo URAC yi di lëkkaloog rajo communautaire yi ñu waxtaan ci li nga xam ne moo soxal wàllum migration régulière tey ji nag ñu dalal Ramatoulaye Diène di actrice nekk également slameuse Ramatoulaye maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay soxna Fatou. Ramatoulaye yow euh, ci euh, facilitatrice yi nga bokk. ñu mhm. constaté ne li nga xam ne moo di drame immigration dafa gën a continuer mhm. notamment tey jii rek ñu ngi wax ay migrants yoo xam ne ci yoonu barsa Barça xew lañ doon jël ba ñu retourné leen lu toll ci quatre cent jeunes. Mhm. yoo xam ne y a même eu des mineurs de 14 ans. tey jii yow en tant que jeune boo déggee chiffres yi nga xam ne ñu ngi koy annoncé. ban lecture nga ciy def. waaw donc soxna Fatou euh, dafa nekk euh, loo xamante ne am na solo muy phénomène migration. alors euh, comme li nga wax nag actualité bi tey li ko dominé gis nañu ko te dafa yemul tey ndax boo seetluwee depuis ci période màggal bi ba léegi dafa mel ni fi ñu toll nii jeunes yi dañoo gën a raakaaju parce que aussi phénomène bi par par par période la dafa am période yoo xam ni jeunes yi dañuy xool mooy ñi nga xam ni les potentiels migrants dañuy dem di xool yoon yi di xoo lay demee yan moment moo gën a propice pour ñoom solo nu ñu koy waxee même bu fekkente ne amul benn moment bu propice ci yoon bi mais ñoom dañuy jàpp ni peut-être période yi euh, surveillance bi au niveau des frontières day wàññeeku wala nangam ak nangam boo seetluwee à chaque fois période bi buñ ci tolluwee chaque année nii lay mel xëy na kay bii nii dañ naan dafa gën a yokku ndax boo seetloo chaque jour soo déggul 400 di nga dégg 300 wala nga dégg yoo xamante ni ay jeunes lañu le plus souvent ñooy jugee ci réew yi ñoom ñëpp di jéem a utal yoon donc mu nekk loo xamante ni dafa dafa doy waar et ça mérite vraiment que ñu ñu ñu appuyer sur la sonnette d'alarme pour mun wax li nga xamante ni nii moo nekk ci phénomène migration irrégulière donc c'est le moment pour ñu mën koo régler c'est le moment pour ñu mën a appliquer li nga xamante ni nii euh, moom mooy politique migratoire yi c'est le moment également pour ñu mën a proposer jeunes yi des choses yu concrètes yoo xamante ni mooy tax la ñuy uti ailleurs ñu mën ko jéem a gis fi ñu nekk Euh, ñu ngi wax également neuf navires yoo xam ne quand même quitté woon nañu euh, ci ay xayma neuf yooyu yëpp daanaka navire bu ne def na plus de trois cents personnes te yooyu dañ leen porté disparu mu mel ni li ñu jot a gis ñi teer la ñuy gis ak ñi nga xam ne dañuy teer parfois décédé mhm. ñooñu la ñu mën a comptabiliser mais ñi nga xam ne dañoo réer ci géej gi mhm. euh, ñooñu kenn mënu leen comptabiliser mu mel ni également politique état bi dafa dafa noppi ci mbir mi depuis ñu commencé waxaat Barça Barça ba léegi gisuñu. Mhm. autorité bu ci réagir pour wax euh, situation wala ñu comme ni nga ko waxee tiire sur la sonnette d'alarme. Mhm. est-ce que du échec bi la ñuy bañ mu confirmer wu également. waaw euh, loolu nga wax nekk na loo xamante ni nii xëy na dinañ ñu ñun beesul si suñu nopp parce que depuis 2018 ñun on a fait des entretiens avec plus de je vais pas dire cent mais de des des milliers de migrants yoo xam ni waxtaan nañu ak ñoom toog nañu ak ñoom ñoo xam ni dañoo nekk sur le point de partir ñoo xam ni dañoo ñibbisi ñoo xam ni dañoo bëgg a dem mais également ñoo xam ni dem nañ ba egg ñu fekk leen fa ñu dem def ak ñoom ak ay entretien ba nga xamante ni di nga mën a xam ñii seeni problème ci lii la accentué wu ak lii ak lii ak lii neuf navires yoo xamante ni na comme ni nga ko waxee dañu porté disparu ñun également ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci terrain bi am na loo xamante ni duñuy ñuy bett le plus souvent dañ naan réer nañu mais ñu ngi fan le souvent dafay nekk ñoo xam dañ leen di jàpp tëj leen ci ay prison te loolu nekkul loo xamante ni mi ngi am ci ci ñàkk yëgtee ñi nga xamante ni mooy sunu sunu sunu njiit yi am na loo xam ne xam nañ ko ci ndax ndaw yi demoon yëpp dellu xam nañu ni ku ci réer boo moytuwul soo demee libi bii nii tey prison yi fa nekk yëpp ay africain ñoo fa nekk te plus prison bu nekk dina def des milliers et des milliers de jeunes yoo xam ne ñu ngi fa te ñaata prison ñoo fay nekk donc kon navire yi nga xam ne dañu naan réer na defoon na tant de migrants tant de jeunes tant de nangam bu ñu demee ci prison yi fekk fa ñoo ñooñu ñëpp képp koo xamante ni jàppuñu ni lii maanaam dafa suux wala dañoo am lii wala lii soo leen gisul bu ñu demee seet leen ci prison yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci sous région bi ñu dem ñu fekk leen fa dañuy fekk ay doomu sénégalais ay doomu Guinée doomu nangam nangam nga dem fekk leen Libye wala nga fekk leen donc yaa leen di ci biir prison yi kon réer boobu ñuy wax xëy na am na gëstu bu ndaw boo xam ne bu ñu ko defee xam fan lañ leen di fekk. mais beneen aspect bi mooy sénégalais yu bëri bu ñuy dem duñu duñu utiliser seen vrai nom loolu mooy compliqué du moom moo tax am na ay jeunes yu décédé yoo xam kenn mënu leen identifier parce que. du mhm. seen vrai nom la ñuy yóbbee. yooyu ak kaso yi nga xam ne quand même. Mhm. je me demande est-ce que autorités yi xam nañ ne euh, y a des sénégalais qui sont emprisonnés. ah ci Libye googu. Oh. te defuñu benn jéego pour mën jéem leen rapatrier fii. waaw xam nga sànq am na loo xamante ni wax nga ko mooy le mutisme bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku tekk tekkaaral bi nga xam ne nemmeeku nañ ko si suñu njiit yi. parce que souvent dangay ne est-ce que que lii nii nekkul ni dafa am leneen lu mu làq ci ginnaawam ndax mu ngi am tout le temps ñu ngi gis ay ay Europe ay coopération ay fondation di financer pour suñu nguur yi war a mën a taxaw xeex lii am donc kon ce que dinañ bëgg financement boobu nga xam ni saa yu ñëwee duñ ko def fañ ko war a def gars yi tax affaire boobu jeex ni est-ce que nekkul ni ñoom dañuy xeex mbir mi mais d'une autre manière jëmale ko ci seen ci seen côté ba nga xamante ni nii kaso yooyu ñuy wax tey ñun les migrants de retour yi nga xamante ni liggéey nañu ak ñoom ñëpp koo ci wax tey bu la limalee prison yi mu def yëpp benn par benn dina la xamal ni la foofu des na ay tant de jeunes africains yoo xam ni ñu ngi fa y compris des sénégalais kon xam nañ fan la problème bi nekk xam nga lan moo doon nekk problème su fekkente ni woon dafa am benn problème ñu jéem a diagnostiqué xamuñu fan la situation bi wala fan la point rouge bi nekkee mais xam nañu parce que tey jii ñun film bi ñu réalisé euh, année dernière nga xamante ni ce n'est que des migrants de retour ñoo si wax amul leneen kenn ku ci nekk am na expérience boo xam ne bu la ko waxee yow mi di njiit mais nga am volonté pour mën a defar wala pour mën a solutionner problème bii nii soo sukkandikoo ci ñooñu liñ la wax. di nga mais est-ce que ñooñu ministère yi surtout ministre de la jeunesse est-ce que xam nañu situation jeunes yooyu surtout video yi ngeen def. pour mhm. au moins ngeen demoon rencontrer ko pour xool ban apport la ciy indi. parce que moom it dafa mel ni yëf yi ñoru ko. waa par exemple euh, su fekkee si dans le cadre de l'OIM l'OIM travaille avec le, le avec le gouvernement avec l'état Sénégal je veux dire nag problème bi mooy est-ce que état du Sénégal nu muy jàppee phénomène de la migration wala lu muy jàppee migration est-ce que le ministre de la jeunesse xam na carrément ni lii moo ci rôle am ak responsabilité am par rapport à la situation parce que dafa nekk loo xamante ni dafa lu mu boole dafa bëri di nga ci boole ministre de la jeunesse di nga ci boole par exemple euh, ministère de ministre de la santé di nga ci boole di nga ci boole parce que jeunes yooyu bu ñu ñëwee dañuy am ay problèmes santé mentale donc yow xam nga ni kon li c'est l'ensemble wala c'est tout un cercle boo xamante ni ñoo ko war a résoudre mais est-ce que bu par exemple ak le ministre des affaires étrangères jàpp moo war a lijjanti sénégalais yi nekk fële bitim réew wala jàppee ministre bi nga xamante ni mooy gérer sénégalais yi nekk ci biir réew mi est-ce que suñu ko yemalee ci ñaari point yooyu ñeneen ñi dinañ xam lan mooy seen part par rapport à la situation donc ça aussi c'est quelque chose boo xamante ni kenn ku ci nekk dafa jot mooy li ma wax sànq rek mooy euh, li nga xam mooy euh, politique de la migration politique migratoire bi loolu buñ ko tegoon tey jii euh, teg nañ ko assemblée national waxtaan nañ ci ba Sénégal donc li ci des mooy ñu teg ay application mais aussi tegal jeunes yi des propositions yoo xam mooy mooy saafara problème yi ñu nekkee mais euh, yan proposition lay doon parce que bu ñu waxee ne Sénégal mooy troisième pays d'après OIT euh, ne troisième pays gën a ëpp taux de chômage ci jën en sachant que ne 60 pour cent de la population sénégalaise ay jeunes lañ. Mm-hmm. Euh, ñuy wax problème taux de chômage jeunes yi di affronter la mort. Mm-hmm. te sans hésitation. Mm-hmm. est-ce que réellement y une politique de la jeunesse boo xam ne euh, am na si Sénégal réellement mais euh, ñun dañuy wax ni par exemple euh, loolu noonu suite la c'est une suite logique par rapport ak ak li nga xam ne moo xew bu ñu demee ba xool Sénégal mu nekk par exemple jeunesse bi gën fi ëpp représentativité ñu gis ni taux de chômage bi également bokk na wala ñu ne ko troisième pays bi nga xamante ni moo occupé loolu ran boobu noonu dañuy ne xëy na suite la pour ko jeunes yi bu ñuy def lii c'est du à ça ñàkk liggéey ñàkkum xëy ñàkk am ci lu ñu jàpp moo waral yoon bee la ñuy jël parce que xëy na loolu ñuy uti feneen buñ ko gisoon fii duñu dem wala duñu jéem a xool leneen feneen seen xel fii lay nekk seen xel dañuy jàppandu ci li fi mën a nekk mais nag lan mooy tax ba jeune duñu dem te ñu ne réew mi dafa am chômage ah kon xam nañ lan moo ci topp mooy ñu fexe ba créer ay emplois jox ko ndaw yi teg ko ci seeni loxo ñu mën a toog. defe naa ne loolu am na solo xanaa rek ñu euh, bàyyi la peut-être ci sa expérience en tant que facilitatrice. Mm-hmm. Euh, est-ce que am na benn. histoire boo ñu mën a raconter ci expérience boo xam ne jot nga ko dundal. les mhm. migrants de retour. waaw euh, en tant que facilitatrice ci projet Cinémarena la ñuy wax donc Cinémarena dafa nekkoon euh, benn benn projet wala programme boo xamante ni li mu doon viser mooy à ce que ñu def ay ay film Euh, dem projeté ko ci ay dëkk dëkk yoo xamante ni le plus souvent dafa doon bari ay migrants soit c'est des migrants de retour soit c'est des potentiels migrants wala sax mu nekk ñoo xamante ne ni xëy na ah ñoo ngi yëngatu ci wàllu migration soit frontières yi jege na seen digg seen dëkk yi ñu nekk parce que Sénégal aussi dafa nekk dëkk boo xam ne dafa front dafa nekk en front frontalier la ak beaucoup de pays yoo xamante ni ñu ngi fii donc loolu noonu ñoo ñu dem baak dikk ba dafay yomb parce que dem nañ ci dëkk yoo xamante ni da gis ñu yor ay ñaari carte yor carte d'identité Sénégal yor carte beneen dëkk wala sax ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk Sénégal yor carte d'identité beneen dëkk donc day tax dem ak ñëw bi day yomb beneen bi mooy la migration a toujours existé donc euh, day nekk loo xamante ni kenn mënul tere nit pour mu dem ak pour mu ñëw mais li ñuy wax ñun mooy nit ku képp kuy dem nga dem si dem boo xamante ni jaar na yoon donc bi ñuy dem ci cinéma arena li ñu doon def mooy bu ñu demee euh, projeté film yi tegal nit yi film boo xamante ne benn bi euh, ñii ci désert bi la ñuy jaar beneen bi ci ndox bi la ñuy jaar ñu teg soit ay ay gaal ay bateau donc ñu projeté leen wan yoon bi nan lay demee wan fayee checkpoint yi wala noonu ngay fayee euh, ñi nga xam ne ñooy jàllale waate donc yooyu yëpp aussi ñu wane ko ba nga xamante ni réalité la da ngay gis ci ngay projeté wi ay nit yu toog nga wane tey jii kenn koo xamante ni nii day jàllale waate mu ne eh diw moo ngi nii kii moo nekk ci dëkk bi donc mu nekk loo xam dafa réel réalité la ñi koy seetaan ñoom ak seen yaay ak seen papa ñoo toog mu leera ne parents sax dina ni doom bi jaar nga fii mu ne waaw parce que am na donc mu nekk loo xam ne réalité la toog nañ ci dëkk yoo xamante ni da ngay gis ku ñëw ne la man de vraiment demoon naa ci lii laay jaar dëkk bii ngeen di wax xam naa fa diw ak diw ak diw def naa prison tant tant tant cinq prison wala et autres il a fallu que sama famille débloqué temps de mille francs wala tant de genre xaalis montant bi nu mu mun a toll pour ma mën a génn de prison à prison parce que dañ lay libéré fii kay jàpp la fee. ñu woo téléphone ngay wax ak sa waajur ñu lay dóor dóor yu metti say waajur di dégg. li nga xamante ni moom ngay dund xam nga tey sa doom nekk nekk foo xam ni kenn xamul mu ne la maa ngi prison nii laa fi nekkee ñu koy dóor muy yuuxu ngay dégg loo jàppoon di nga ko bàyyi dem lijjanti 300000 bi ñu lay laaj wala 400000 bi wala 200000 bi et autres donc mu nekk xale yoo xam ne dund nañ lu metti ba tax na ñun bu ñu demee di projeté également ñoom ñooy dellu si si yëf yi nga gis koo xam dina ni la man kat demoon naa en état mais bi ma ñibbisee lii teg ci loxoom ni la maa ko moom. dama investir parce que xam naa ni la may uti feneen ak yoon yi ma doon jël yëpp lii laa ci mën a am mais aussi jeunes chaque fois li ñuy demandé mooy ñu yombalal leen tukki fexe ba nga xamante ni gis nga ni ñu ko jëlee def ko benn affaire boo xamante ni c'est extraordinaire tant que facilité lu ñu leen ko du ñu mën di dem di ñëwaat wala ñu xam ni la ñu yaakaar ni Eldorado la nële du dara li ne fii ko gën wala li ne fii ñoom ñaara yam même su fekkee am na ay différence parce que dëkk bu ne am na ay réalité dëkk bu nekk am na xëy na nu mu gën a développé comparé ak beneen dëkk donc du ñàkk mais la ngay uti feneen muy liggéey te xamoo ci lan nga ko wéer xëy na boo toogee fii ci sa réew dan koy da koy mun a am également mm-hmm. defe naa ne waxtaan bi am na solo bon slameuse nga je sais pas ndax préparé nga benn <laughs> slam waaw malheureusement nag j'ai pas préparé de texte de slam parce que euh, waaw j'étais pas venue ci cadre boobu parce que on a été formé par looy euh, grâce à yem ci ak ay slameuse yoo xam ni jàngal nañ ñu comment déclamer un texte et jàngal ñu bind kii donc je suis pas benn professionnel boo xamante ni tey jii boo ma boo boo mu bësee rek ma mun a déclamer un texte pour autant surtout par rapport à la émission seulement que nag j'avais fait un texte boo xamante ni euh, mu ngi moo ngi kii woon euh, mu ngi mu ngi baasewu woon ci ki nga xamante ne ni euh, dafa dafa dafa doon tukki nekk genre benn jigéen boo xamante ni mu ngi bàyyi benn góor boo xam ni bàyyi na soxlawam bàyyi yaayam bàyyi bàyyi njabootam dem tukki uti ji loo xamante ni tegu ko fenn fu dul si amoon yaakaar am yaakaar ni dina tekki wala dina am dara mais malheureusement euh, demeewul noonu donc xëy na peut-être mën nañu euh, rafraîchir un peu mémoire yi pour mun a xool peut di si la fin ñuy terminer dinañ déclamer benn texte. absolument bon. bien que waxtu bi daanaka sax dab nañu xanaa kon ñu bàyyi la à défaut de cela <laughs> nga wax la message booy adressé aux jeunes surtout période bi nga xam ne euh, yëf yi mu ngi gën a compliqué waaw euh, période bi nag moom li nga xamante ni ñoo ngi ci ñoo ngi ci vraiment nekk ci mooy euh, ñun on a eu la chance ñu dem Maroc ci via benn fondation boo xamante ni moo ñu lënkale ak ak OIM et bi ñu demee aussi c'était pour s'enquérir de la situation des migrants yi nga xamante nekk foofu liñ fa nekkee nag loolu la ñu loolu la ñu gis loolu la ñu ñëw via benn benn étude boo xam ne ñu ko doon def alors bi ñu ko defee ba pare également bi ñu paree am nañ li ñu metti parce que li ñu metti mooy dangay gis ay jeunes yoo xamante ni ay xale lañu seen réew soxla na leen lan la ñu nekkee réewu jàmbur mooy ne taxawaalu soit di nekk ci loo xam ne neexu leen gënalu leen jigéen yoo xam ne ñu ngi jaay seen bopp gënalu leen parce que elles pensent qu'elles n'ont plus le choix et que actuellement ele pense que amatuñu le choix donc nee nañu peut-être reculer c'est mourir partir c'est mourir donc mieux vaut avancer et mourir que de reculer xëy na di dundu ak ñun si nga li nga xamante ne nii moom la ñu suñu suñu suñu réew di di di permettre ñu koy xoolee nit yi donc ñu ngi foofu noonu réer nañu donc il faut ñu fexe gindiwaat suñu suñu ndaw yi ba ku ci dem tamit ci mbir nga échouer nga xam ni repartir du weesu parce que loolu dafa am solo hmm? beneen bi mooy aussi ñu dooleel ndaw yi dooleel ndaw yi mooy yombalal leen liggéey yombalal leen tukki yombalal leen xam-xam bi muy jàng mais aussi parents yi jouer seen partition par rapport à la situation parce que defe naa faatu muy yow comme muy man am na loo xamante ni xëy na yare nañ ñu ko ba xalaatuñu di dem di fanaan fenn ñetti fan ci loo xam ni du jàmm te suñuy waajur bàyyiwuñu ci wala xamuñu ci lii ñuy dem lan la donc pour man euh, dafa nekk loo xamante ni euh, les responsabilités son partagées li ci war état bi dafa bëri parce que mooy kilifa gi numéro un moom la ñuy indexé di ko adressé la parole pour que mu dimbali jeunes yi dooleel leen parce que Sénégal nekk na réew moo xam ne politique bi da kaa mëne trop ba nga xam ne même ay financement bu amee pour aide pour appui à la jeunesse par par parloo lañ koy séddalee donc loolu noonu tant que xeexuñu ko duñu jàppale ndaw yi ministre bu fi mën a ñëw ñu ne la yow yaay ministre de la jeunesse nga ni dégagé naa tant de millions pour les projets de jeunes nañ koy séddalee moo dul neex le dernier projet mooy DER bi la direction à l'entrepreneuriat rapide nan lañ ko séddalee ñaata ndaw ñoo dem dugal foofu seen projet ñun ñaata migrants de retour lañ waxtaanal ñu ne dugal nañ fa projet fan la mujj ñooñu dañuy xaddi lañ la ñuy waxaat mooy ah bu ñu amaatee lu ñu mën a yóbbu dañuy dellu te loolu gën a lu ñu donc euh, daal ñu ngi lancé appel à tout le monde pour que ñëpp def seen loxo ci yëf yi donc euh, beneen information mooy qu'on a créé récemment benn association et c'est pour lutter contre la migration irrégulière bien vrai que nag ñu ngi ciy doxal boobaak léegi boobu phénomène bi dellu si waatul nii ni ko nit ñi di kiiwee pour dire que dafa regrouper ay migrants de retour yu bari ak ay volontaires donc euh, ñu ngi ciy invité ñëpp à ce que débat yi waxtaan yi ñu invité ñu si ñu mën di développer di mën a waxtaan di indi ay thèmes ak ay propositions par rapport à Sène euh, nekk euh, facilitatrice ne Marina nekk également journaliste mais également slameuse ñu dalaloon ko ci suñu dernière euh, émission bi nga xam ne chronique plutôt jëm ci li nga xam ne moo di wàllum migration régulière mais Euh, waxaale un ci li nga xam ne moo di mm-hmm. immigration irrégulière ndax OIM li mu soxla mooy jeunes yi bu ñuy dem kenn terewul kenn tukki comme ni ñu ko waxee mais ñuy def immigration euh, euh, régulière donc ñu leen doon jaajëfal ci déglu bi ak li ngeen saxoo di déglu li nga xam ne moo di rubrique bi di fàttali ne soxna maam Koumba Diagne ture moo nekkoon si wàllu xarale gi Fatou Ndiaye ci kàddu gi di leen dig dajee ci yeneen jëmmi jamono